internet yu 5 TV àlle ma sañu nopp ma dëg sa leen moom la def ci arène nationale ba merloon na bu baax kilifa yi vox populi ne bi artu na amateur yi nga xam ni ñoo yàqate siège ya ndax nee na rek bu ñu moyewul dinañu tëj arène bi mataar ba di jëwriñ bi gàlloo wàllu tàggat yaram fësal na ab meram ndax nee na xalaatul bàyyee mbir mi noonu mu xam le ni caméra de surveillance yi dinañu ci sukkandiku te dinañu xam rek ñi nga xam ni ñoo jëf boobu la ñaawteef Les Échos dool di ñu si xamal ni lu toll si 213 siège la ñu yàq ba tax rek mataar war a tëj arène bi te dinañu ko tëj ba tax le ne la xew ca arène nationale Matar Ba amu ci benn xolu yërmande ñu jàll ci Sud Quotidien mi xëy ci coowal local yi yéenekaay bi di ñu si xibaar ni euh, calcul yi nga xam ni waa pouvoir bi ak waa opposition bi moom la ñu nekkee moo yéexal yooyu le jongante laas di ko ca feelu ndax fësal na ni euh, waa ko kuje gi ay conditions la ñu teg ci local yi ñu ne atub 2022 la ñu koy amal ci janvier bi ak législatif yi nga xam ni ci même at mi rek la ñu ne moom la ñu koy amal le Témoin Quotidien dolli ci ni lu ñeel local yi yàq ak dàqaat opposition bi ak waa société civile bi ana ñan ñoo siy jàppale pouvoir bi ndax waa opposition bi dañu ne pouvoir bi ñooy responsable ci lépp li xew ci local yi ba tey rek taqal nañu ci waa société civile bi na ñooy jàppale waa pouvoir bi ñoom nag waa société civile bi ci seen wàll weddi nañu lu ni mel noppi nag tegaat lépp ci kaw kuje gi ba tax mu njaay siise ak Birahim Seck bu waa société civile bi ak Aliou bu opposition bi ñoo ngay a ci lu soxal ñak bi jëm rek ci xeex mbasum covid 19 bi le soleil ne Macky Sall amna ñaari accord yu am solo ci lu jëm rek ci bëgg-bëgg bi mu am ngir défaré fi ay ñak yi nga xamni day xex mbas professeur Souleymane Boupa ak docteur Amadou Sall xamle nañu ci yene kay bi ne accord yooyu dina yaatal écosystème biotechnologie bi nga xamni mo nekk ci Sénégal Vox Populi dool di ñu si xamal ni lu ñël vaccin traditionnel ak vaccin ngir xex mbass mi wa Belge universel dinañu taxawal ay centre de production fi ci réew mi ànd ci ak IPD ak IRES PSF l'exclusif eh, eh, yéenekaay bi nee na dogu nañu rek dina mi li nga xam ne di courant te ñëpp rek dinañu jot ci courant na dina dimbali lu toll si trente-sept mille cinq cent njaboot yi nga xam ni eh, seen koom-koom bariwul ba tey rek lu toll si yi nga xam ni ñoo ngi nekkee ci lu yu bokkul dina ko sécuriser loolee lépp nag ngir amal ko Walf Quotidien moo ngi ñuy xibaar ni Senelec dina génne lu toll si neuf virgule sept milliards ci kopparu CFA ngir financer lu toll si ñetti projet source a ñëw ak ñun eh, ci koppar gi nga xam ni xalif général des eh, boo xam ni eh, faatule nga ci rek jox nañu la lu toll si ñaari million ci kopparu CFA ñi nga xam ni ñoo si jëlee ay gaañu gaañu yu taratar ñu jox leen un million turbine moom ab gëstu la xëyee jëm ci weeru koor bi ñu dugg ak fi nga xam ni la réew mi toll si ay jafe-jafe yéenekaay bi ne si weeru koor bu tar rek la jëm ndax ñàkkum xëy mi nga xam ni moo am ci réew mi ak barabu liggéeykaay yi nga xam ne dañu koo tëj ak euh, njëgu dund gi nga xam ni yombul ci ñëpp ñu jeexal ak xibaar bu doy waar bi nga xam ne source a moo ko fësal te mooy rek benn xale bu jigéen bu ay atam toll ci fukki at ak juróom euh, bañu ne rek euh, moom moo tuumal ba ne da àgg ci kawam ay yoon yoon ba mu daal di siy jëlee ëmb fi la ñuy ndar keppee li ci yéenekaay yi ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg incha allah ngeen jëf